looy dugg si borom takk yërëb ba ngoog nee na ma Ndeye Mbacke alias Sakandé waaye tànk làmb ji jeexul du ma la ko firndeel ma ne ko takk ci loolu mooy loolu mu ne ma Ndeye Mbacke xaaral xaaral ba làmb ji jeex ayca borom takk yërëb ba ngoog noonu Mansour dafa atin dugg si na. le géant du Baol yaakaar Baol Baol yaa ngoog le géant Modou Mané le géant allez Tapha Tine moo dugg si noonu le géant du Baol Mansour mu ngi noonu ay galaajam borom takk dirib nee na ko takk dirib nee na ko butéel ya ku nekk bëgg koo jege bëgg koo gën a yey mu ngay Sodeko ay galaajam Mansour Fall takk dirib borom Sakande mu nga noonu dugg Bawol Bawol yëpp daal di Bawol Bawol yëpp daal di jug waaw ne Bawol Bawol dañoo mën bis te kenn ku ne xam na ni Pikine dañ fi am cër ndax Paco Lambaye gi waaye cër cappaacoli bis la boo tey dama ni xam nga yërëm Fat Mbacke ki wute lamb ji. dégg nga loolu ku ko wutee la yërëm Adja Ndeye Mbacke maa ngi noonu la machine dépassée sa nii l'espoir de sa maman borom ngi noonu ña ngay sulli ñii di suul ñii di sulli samp na benn bëtu ëmam daal di jugaat mu jug booy booy jug booy ñaa jug waa Pikine jug stade bi mel ni Tulle ak Mali stade bi di mel ni Tulle ak Mali de ñii gas ñii suul ñii gas ñii suul ñii daa mel ni day war géew ga moom borom saakaande danam ci cat bu ne daal di fay sam bëtu ëbam soo ko dafa ay débat débam daal di jug ñi naan ko wooy ñi naan ko wuu mënut a ñàkk ànd ak waa Bawol ànd ak mbëru Bawol Bawol yi waaye ànd ak xale Bawol Bawol yi ànd ak kilifa Bawol fii ci géew gi ñu ngi sulli geesu sa ginnaaw geesu sa ginnaaw ñii suul ñii sulli lax ma ni mel ñii dañu ñëw di suul ñii bu ñëwee di sulli aja dafa ñaan ci géew gi la jëm ay cubukaayam kenn du dafa tin ndeysaan maa nuyu aja mu ngi noonu nag ci biir géew gi ko séenee sëgg wala lay jonkoon def ay débat débam comme adversaire am waaye ca wet ba ñee ngi sulli mu mel ni dañ leen a deewal mu mel ni dañ leen a deewal na nga demal rek